man li may xam maîtri li may wax dama ko maîtriser alhamdulilah fa lillahi alhamdu wa sukkur mag ñi ma ko nettali te ñooñu kenn rawu leen ci réew mi ñépp a leen xam maa ngi koy wax sëñ Daawuda bii démb ma ne ko alhamdulilah waxtaanu sëñ Mansour bi li ma ci gën a neex li may wax yépp ñi ma fas yéene cité ñi ci ëpp ñu ngi dund te wax di site kuy dund moo gën a neex di wax site ku génn àddina ndax dañ naan day day sóobu rek kooku ku ko mën a laaji waaye li may fas yéene wax nag ci borom daara ji ku ko weddi nga laaj ñi may tudd am na wala amul te bu ci tayal loolu laaj ci jublu toujours damay wax ne kuy waxtaan ci sa kilifa bul def waxtaanu dof waxtaanu dof mooy naan mbam mu yéegee asamaan ci juróomi bidiw mu daanu loolu concerné wuñu ni nekkee woon ak ñun ba dundam rafet yàlla gërëm ko ñun loolu lañ soxla ci moom mu jubook yàlla jubóog mbindeefi yàlla yi ndax ñun suñu àddina mën a baax suñu àllaaxira mën a baax moom borom daara ji di mu ko daan waxe bien fii bien fële mu ne mooy rabbana atina fi dunya xasanatan wa fil axirati xasanatan wa qina adhaban naar sëriñ loolu rek lañ koy doyee boo amatul loolu ci sa sëriñ booye boo ko ku ñépp xam xanaa ku gëmm te ku gëmm sax di nga dégg kii ñu fas yéene waxtaanee àddina yépp xam nañ ko muy seydi muhammadul mansuur ibnu seydu abubakar si ibnu cheikhul xaaji malik ibnu osmaan ridwaanullahi alayhim ajmain sëriñ mansuur li may wax ci moom yépp nag ci ñii laa ko jëlee li ci ëpp bi ci jiitu mooy maa fekkee man miinoon ko lool daawo da jóob bii xam na ci dara senegal nag neexul waxe bu ma déggee ñu naan Chérif xamul ci Alaaji Abdou Aziz Sire daf may jàpp naan nañ génne nañ génne portale bu mu ànd ak moom photo bu mu ànd ak moom wala nang wala nañ xool film yi fu mu mos toog ci wetu Alaaji Abdou mu ne ñii ñoo ñëkk fayda te ñàkk xam yooyu yëpp nag méttiwu ma dama xam ne nit bu iñaanee ba iña ñi lu ko neex lay wax Malick Sall kii xam na ko téere yi mu ma jox léegi malik Sall moo ma ko njëkk a wax balaa may jot ci téere yi góor gi ko defar muqaddamu Seydi Hadj Malick la Ablaye Sow bu Dagana moo taalif téere yi ñu ma jox nii léegi góor gi Ablaye soow Malick sàll def na ci xasida fu Alaaji Abdu Masa woote maag malik Sall ñooy ànd def na ci xasida woy ko ci bànd ba léegi maa ngi ko yore am nga ko waaw kañ Malick Sall dama ci Malick Sall Euh, Omar Diop xam na ko mu ngi Pikine daara ji mu yor Pikine fanweeri at yu teg mu ngi fay jàngale masul toxu fa daara ja nekk fa la nekk maag moom ànd nañ vingt-neuf beneen bi ci des nag sama sama taaw Tiwaawan la juddoo di xanaa lu nit gàtti gàtti itte sa doom ju sa taaw juddoo Tiwaawan war ngaa xam Alaaji Abdu <laughs> wala déet daaw da ah, ba léegi mu nga Tiwaawan di sëy de te kooku sax du sama taaw sama taaw góor la ba léegi mu nga tiwaawan di si beneen bi ci di bëgg a de ku bëgg a xam nga xam naa Alaaji Abdu wala déet laajal si di Moxtaar Kunta ak Sëñ Suleymaan Sekk ñoom ñi ma fa daan àndal jege si la ñoom ñi nga xam ne maak ñoom ñoo fa daan ànd ba ci borom daara ji maak Serigne Mansour maak Sëñ Suleymaan Sekk ak Sidi Moxtaar Kunta ñoo fa daan ànd ak Mansour Sarr bu Sëñ niiru Sarr waaye nit ñi xaw ma lu leen dal rek nit ñi daal moom dañu wéradi dëgg dëgg dëgg nag dañu wéradi ku toog naan Chérif El Hadj Abdou xamoo yaa soxor dëgg dëgg dëgg dëgg wala nga laaj Cerno Basiru Muntaga daa Cheikh ma ndax El Hadj Abdou xam na ma walla déet ah yaakaar naa loolu leer naa dina bi yëpp nag waaw yooyu nag damay wax rek pour xam naa ne yéen a koy dégg yéen laay dimbale waaye man ñoruma nag man li ma ñor maa ngi ci man duma tontu waxu mbedd te kenn amul fitit jàkkaarloog man di wax moom loo rëy rëy daraja ñemewoo jàkkaarloog man di wax loolu moom yàlla séddu ko kenn ndax di fi fekk loo xam ne ba ngay dee doo ŋaang te réew mi nag ku ma fi ëpp fit amul gisuma ko fit moom maa ko ëppale ñépp loolu ñépp xam nañ ko engagement bi may jël kër Seydi Hadji Malick kenn ñemewu ko jël Maodo juróom du sama baay du sama maam ci ci ci deret <laughs> waaye sama maam la ci xaqiqa ndax tariqa bi ma nekk bu du toon moom du samp tànk Sénégal bu du toon Maodo tariqa bi du am benn cër fii ci Sénégal woyoo woyoo lay doon man maa la ko wax ma ne fu Cheikh Omar nekk lu tax ñuy tudd Maodo te tudduñ Cheikh li ñuy tudd Maodo duñ ko tudd Cheikh Oumar dëgg la wala du dëgg <laughs> ku bëgg ku bañ nag réew mii ci tariqa tijaan fi teg tànk loolu demal ci état bi xam nañu ko moo tax palais bii ku fa ne dagaj boo liiree archives rek sukkaat ci suuf tous les chefs d'état xam nañ qu'est-ce qui se que ay archives la duñ ko wax nag parce que y a secret d'état ci loo xam ne ci ngay téye ci réew mi pour mën a defar réew mi mais <laughs> pour pour réew mi am équilibre ñëpp mën a am jàmm loolu rek a tax de waaye xam nañ ne Maodo du fi moroomu kenn loolu ñëpp a ko xam loolu moom lu gars yi waaye gàtt xam-xam nga ci dara fii Maodo du fi moroomu kenn te billaahi bu du toon Maodo tariqa bii weriyaan lay doon senegal xam ngeen weriyaan ñaxug weriyaan mooy ñax googu nga xam ne dundut deewut te kenn mënu koo gis ci suuf lay nekk nii rek moo tax wolof bu la nee dunduk weriyaan ngay dund rek xas na la <laughs> mooy dunda deewoo bu du toon Maodo tariqa bi ci senegal fii dunduk weriyaan lay am Cheikh Umar nag teel a xam ne bu amut ku mel ni Maodo tariqa bi nax saay mu teel a fàkkal Maodo teel a xam Maodo teel la lijjanti Maodo ca alamul arwaax la ko lijjante la sëriñ Babacar si waxoon baayam ne ko yaa ma tànnoon ca alamul arwaax pour ma nekk sa doom waaye man mosuma bëgg nga nekk sama baay <laughs> xanaa gën a garaaw sëñ Babacar si moo ne Maodo yaa ma tànn ca alamul arwaax négocier ak man pour ma dugg ci sa biir nekk sa doom waaye man tànnuma la woon kon dañuy ànd nii rek yooyu boo koy wax nag nit ñi dof lañ xamuñ lu xew waaye looloo am am na ñoo xam ne seen juddu foofa lañ ko tànnee dooru ñëw sëriñ Cheikh Tidiane si mi ma fi waxtaanee keroog wax na ko nee ba moom it wax na ko mu ne sëñ kër si <laughs> moo tànn jur ma waaye man sama turandoo moo choisir ma nekk Cheikh Tidiane te loolu wax na ko ñëpp dégg ko kon fa tabaarakallaahu kii ñuy waxtaanee li ci ëpp maa fekkee jaxasoo ak moom xam ko bu baax bu baax dana ñëw ci biir waxtaan bi ba fañ mujj ma ak moom toogal à l'aise nekkal à l'aise bu baax dina ñëw ci biir waxtaan bi beneen bi maa ngi ko jëlee ci làmmiñu Daawuda Jóob bi nga xam ne ku sësoon ci moom la ñetti yoon yi sëñ Mansour dem Paris yépp sëñ Mansour tagg na ko fa ci loo xam ne moo ko liggéey ci malaanu wasifa bu mu génnee ci néegam mu ne ko ah étudiant bu ñëw fii ci Dakar ci ci Paris ñu xalaat ne ci leneen lay nekk mu fexe ba am malaanu wasifa néegam du noonu taggu ko ca wax ko ca ñaanal ko ci yàlla Masamba Masamba étudiant xam na ki bu baax daaw de mi ko xiir ci tariqa bi ak dawaayir yi daaw de mi mook Lamine Jéey man lu may wax dama lay joxoñal nit sa sëriñ boo koy dimbale da ngay wax lu ñuy loo xam ne c'est palpable waaye bul xàll mbologaan xàllet ñu naan dëgg la ak du dëgg déedéet da ngay wax lu loo xam ne c'est palpable beneen bi ci des maa ngi ko jëlee ci làmmiñu Amadou Wele Amadou Wele tey Tiwaawoon ñépp xam nañ ko deret la ci siyeen deret la ci wele moom ñaar yépp la boole maam Alfa maamam la Seydul Xaaji Malik maamam la mu maîtriser yi lool kër la Hadj malik ci ñi ko gën a maîtriser ci la bokk ndax doomi mag la dama ko woo wax ak moom ba noppi door a woowaat daawuda bi wax ak moom ne ko ndax balaa may wax ci nit damay seet ña ko gënoon a jege xam ci moom ñu dolli ma bi may waxtaan ci sëriñ Cheikh noonu laa defoon woo Hadj Malick Cissé Jinge ak imam Moussa Guèye ñu dolli ma bii noonu laa def dama woo Amadou Wele woo ko moom mii ba ma gën a neex na bi ma njëkkee woo Amadou Wele daf ma ne yow de am nga sens xaw ma maa am sens léegi laa lay laaj Mansour Guèye mu ne ma yaa ngi Paris ma ne ko waa Paris laa lay wooyee nii de mu ne ma ñu ngi nii ci kër maam alfa xaaral ma jox la maam Alpha bu Alaaji Abdu mu jox ma maam Alpha si bu Cheikhul Hadj Abdoul Aziz ma wax ak moom laajaale ko yii kon man du wax ci sama bànneexu bakkan bi mu paree ma ne ko paas ma ñi fa nekk ñëpp ndax ñoo am seede mu paas ma docteur Yaquba fay bi ngeen xam te muy ñëw fii xadara ma wax ak moom ma ne ko paas ma Mansour Guèye mu paas ma Mansour mi ma wax ak moom mu paas ma ñi fa nekk ñëpp ma wax wax ak ñoom door a couper sama téléphone. lii Daouda dama koy wax pour li ma fas yéenee wax nit ñi bañ a foog ne rek dama koy xàll mbalogaan nag yu kenn xamul. man duma fomante dara lu ma la wax rek mën naa laa wax ki ma ko wax wala ma fekkee Seydi Mouhamadul Mansour mu ngi ganee àddina ci wayjur wu ñuy wax sëriñ Babacar si àddina bi yépp xam sëriñ Babacar mooy wayjuram bu góor sëriñ Babacar Seydul Xaaji Malik mooy wayjuram bu dee ci jigéen soxna suñuy wax soxna astu sekk wala aysatu sekk wala aysatu sekk boo ci wax rekk baax na bu dee arab mooy wax aïcha bu dee wolof ñoo naan aysatu walla astu bu dee ci wàllu ndeyam lëbu gi ci ndakaaru ci ñiy falu ci ndakaaru ci la bokk ci fukki penc yéeg ñaar du noonu ci lëbu gi ci ndakaaru fukk penc yeeg ñaar sëñ Mansour ci ñiy falu ci la bokk kon noobal la loolu laa la bëgg a wax ni ma la waxee woon na Serigne Cheikh noobal la gis nga ni leen yàlla boole moom it noobal la sëñ Babacar ñépp xam nañ ne noobal la ndar-ndar bi du loolu lañ koy dàkkentale kon ñëpp xam nañ ne noble la sëñ Mansour sëñ Babacar jur ko ñu ne déet soxna Astu Sekk jur ko. ci ndakaaru fii nga xam ne ku fi yaatu rek lëbu yee la yaatal ba ci Seydil Hadji Malick bu du toon lëbu yi du fi yaatu ndax ñoom la yàlla dënk ndakaaru ñu moom ko mu ngi gànnee àddina ci 1926 muy mois de août du noonu 15 août 25 1925 mu ngi ganee àddina samedi 15 août 1925 xoolal quinze août rek li muy tombeel ci réew mi ba tey ba àddina tukki feet la fii ak àddina bi yëpp vingt le la ci àddina bi yëpp yëpp yëpp yëpp monde bi foo mën a dem ci àddina bi quinze août feet la kon moom yàlla teel na koo noppal loolu lay signifie yàlla noppal na ko ci xam-xam noppal na ko ci daraja noppal na ko ci alal bu ci nekk sonn ci te am na ko mu ngi magee sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy juróom benni weer magee lu doomu bàyyi du noonu la six mois la ñu magante yàlla boole leen biñ ganee àddina soxna astukan def ci liggéey bu rafet ndax boobu way juram moom sëriñ Mansour nekkatul ci kër gi soxna astukan boole leen mook Serigne Cheikh ma def ci benn entre parenthèse Serigne Mansour taawu Serigne Cheikh moo ma ko nettali mu ngi dund mu nga Paris bi ma koy nettali yàgg na ci Tiwaawoon la ma ko nettali woon ba bi ñuy ñëw fii gis ngeen sama gàmm gi moo ko ba muy conférence moo ko daan présider loolu moom foto yaa ngi fi lépp a ngi fi vidéo yi sax a ngi fi sama xarit la waaye sama nijaay la ni ko Serigne Moustapha responsable nekkee mustarshidina wal mustarshidaati mu ne ma shérif bi may xale sama yaay daf ma sama maam astukan daf ma bëggoon a bëgg a bëgg mook Serigne Mansour ba xaw sama turandoo xaw ma ñoom ñaar ku ma ci gënoon a bëgg mu ne sama maam Babacar si nag gën leen a rakkaaju ñoom ñëpp ndax gëmewuma woon yàlla mu ne ba bés rek ma gis soxna astu teg booli beñe nee waaye nag soxna si mu ne ñépp a ko ragaloon ndax fermeté bu ma àndaloon nee na ma ñëw ba fekk sëriñ Babacar toog ci biir néegam déedéet nee na ma téye nii loxo bi ne ko maam kaay ni waaw Mansour foo may yóbbooti yow eh, maam ñëwal rek ñu ñuy ànd di ànd di ànd ba ci booli beñe bi te eh, mu ne ko maam beñe bii laa bëgg nga sàccal ma ci <laughs> beñe bii laa bëgg nga sàccal ma ci ni sëñ Babacar ne ko laa hawla wala quwwata illa billah ay Mansour sàcc nit kaay ma wax la nu ñuy def nee na ci loxoom ñoom ñaar ñu ànd ba ci soxna astukan nee na sëñ Babacar téye ci loxol soxna astukan ne ko kaay ñu dem nee na ñu ànd ba ci booli beñe bi nee na mu ne ko man man mii ak Mansour mii ñooy ànd di yelwaan ci lii <laughs> xoolal corrigé bi mu ko corrigé ak ni mu ko jàngal mu ne ma ba bés penc loolu du jóg ci sama bopp mu ngi ma mel ni tey moo tax njaboot boo koy yar da koy yar ci image moo gën da koy yar ci image mooy yow fexeel ba ci sa sa kanamu njaboot bul def luñ lay xeebee bul wax luñ lay xeebee ndax xale bi day copier ci yow xoolal Mansour booba ba bi ma koy nettali ñaata at mënu ko fàtte nee na soxna astukan ree ne ko waaw lu la Mansour mu ne ko ah yow daal yelwaan dañ la def sarax ñu ba noppi nee na soxna Astukan tibb ci beñe bi jox leen mu ne ko Mansour di daf ma fekk ma toog mu téye sama loxo bi ñëw ba ci booli bi ne ma lii laa bëgg nga sàccal ma ci baatu sàcc bi mu wax nag mu ne ko moo tax ma jàpp ci loxoom ne ko maak moom ñu ñëw yelwaan ci lii ba xam ne sàcc baaxut mu ne ko waaye soxna si yow it jëf ndax yar nga leen ba kenn ñemewul laal alalu jàmbur te tàggoowut seetal loolu waaw yar nga leen ba kenn ñemewul laal alalu jàmbur te tàggoowul bu doon tey jii sët yi ma xam ak gone yi ma xam dañ ci naan cëfit dugal ci poos teg dëgg la wala du dëgg waaw kay sëriñ Mansour dal alquran ci loxol way juram gannaaw gi la ko jox ni joxe sëriñ Cheikh góor gi Mor Xujja jaar na ci loxo sëriñ Aline Guèye jaar na ci loxo sëriñ sëybatu Fall jaar na ci loxo góor ga saara ca Buudi waaye ñooñu ñépp suñ ko mosaan njàngal ba noppi day ñëw ci sëñ Babacar mu leeralal ko sëñ bu sëñ Babacar mosul bàyyi rek ñeneen jàngal leen ñu dem bu leen jàngalee ba noppi dañuy ñëwaat ci sëñ Babacar tari sëriñ Babacar digg lum mu cay dolli dolli ca lum mu cay rectifier rectifier nii la mos a nekkee way juróom ba ni mokkalee alxuraan mook sëriñ Cheikh ñoo bokk même age même année ndax ñoo daan jàngandoor ñoom ñaar ca daara jooja nag ba ñuy jàngal xoraan lañ fasante woon kóllëre ñoom ñaar sëriñ Mansour ne sëriñ Cheikh nañ fasante kóllëre mu ne ko ah, su ma amee taaw tuddee la ko yow soo amee taaw tuddee ma ko ñoom ñaar ñu d'accord ca booba ñu nga ca daara ja di jàng mokkalaguñ alxuraan moo tax kër gi ku yebu rek nga teey ci seen mbir fañ ko fase fekkee woo ko kon yow mi ñëw tey bu ci jéem dara lu dul yiwu bu ci dem jéem dara lu dul yiw soo ci mënul yiw noppi man sakata najaa yonent bi nee na ko noppi mucc te am na loo xam ne wax ba yàqoo ca moo mën a nekk waaye wax ba yàq ko mënul nekk kër Seydi Hadji nit mooy wax ba yàqoo fa waaye kenn mënu faa yàq ndax borom ñag na ko ba noppi fa lañ fasantee wóllëre nag ñoom ñaar seen kóllëre di dox ba ci feebar sax sa moroom du jàng ñu àndee noonu àndee noonu àndee noonu ci gàttal di ànd di jàng di ànd di wàcc di niroole ay mbubb di niroole ay dàll di niroole lépp lu sëriñ Cheikh am sëriñ Mansour am ko lu sëriñ Mansour am sëriñ Cheikh am ko ba bés mu ne sëñ Babacar si ne ko si yéen de seen diggante yéen ñaar man sax xajatuma ci sëñ Babacar seedeel leen loolu ne ko Cheikh Tidiane yaag Mansour mii seen diggante xajatuma ci man Babacar noo nit mosul dëñ ba wuy ji fekki seen wayjur te dina ñëw ci biir waxtaan wi ci bi mu nekkee ndaw jàppuma at bi nag moo du ku digg na Serigne Mansour dem na armée dangay ngay foog ne ba ñuy forcer nit ñi la waaye moom kenn forcé wu ko pour mu dem armée ci teeyu bakkanam la demee armée kon moo lay wan ne moom ku amoon fit la ba léegi fi mu ne nii rek am na ci boy yi ñoo xam ne koo ci ne armée mu takk tànk bi def ci def ci diw tiir pour bañ a dem man maa la ko wax sama maam Cheikh Diouf moo ma ko nettali nee na jamono 14 18 bi ñu daan recruter armée moo sama maam dem na 14 18 dem na 39 45 ñaari guerre yëpp dem na ko. mu ne bi ñu daan recruter 14 18 mu ne da nga gis dëkk bu ñu masaan ñëw rek da ngay gis koo xam ne day jël ponkalum kii bu weex rek takk ko ci tànk bi rek jël diwtiir socc ci di yuuxu rek fekk dara dalu ko bañ a dem armée rek mu ne mujj gi nag tubaab bi nànd ko mu ne lii daal mënul nekk ndax dëkk boo dem ñëpp di takk seen tànk yi di yuuxu nañ tekki xool mujj gi kuñ tekki rek gis ne dara dala la ñu dóor la pes rek ne la armée waaye moom armeem moom ci teeyu bakkanam la demee armé moo lay won ne ku amoon fit la ndax ba léegi rek ñi ñeme armé bariwul de ndax dërëj dërëj ja nekk ci armé ak tumaranke gi nekk ci armé ku amul fit amoo pas-pas sa yaram dëgërul doo fa dem dañ ne armé neexut de am na militaire yu nekk fii ci biir kon xam nañ li may wax waaye Serigne Mansour moo tànnal boppam pour pour dem quartier ñu recruter leen yóbbu leen cees lañu leen njëkk a yóbbu boobu Seydi Ahmed bu Cheikhul Hadji malik bañ ko waxee sëñ kër si dafa ni bàyyi leen ko mu dem ndax comme Seydul Hadji Malick yàlla nattoo woon na ko Seydi Ahmed dem armée faw man ma am ko dem armée ci làmmeñu Daawuda bii laa ko jëlee sëñ Mansour nettali ko ko mu ne keroog sëñ Mansour nee na ko bi mu ñëwee di tàggu sëñ Babacar ne ko maa ngay dem mu ne falaa fala budda min shakwa la ko sëñ Babacar ñaanalee ba mu jeex du noonu daaw nee na moom la tari ba mu jeex ñaanalee ko ko ne ko demal biñ jógee Cees ñu yóbbu leen Kawlax foofu la coow amee xam nga armée Souleymane Ndoye ngi ne le ak Malick duñ ma bàyyi ma fen xam nga armée dafa am rigueur bu fa ne chef rek ngay topp wa illaa chef bi boo ko toppul dañ lay tëj ci kaso armée bi ñetti fan ñeenti fan yóbbu la travaux forcés def loola yoo xam ne parce que armée kenn sañ te bañ sëñ Mansour nag bi ñu demee kaw la fekk góor gi Alioune Ba bu ngumba du noonu doomam mu ngi woon ci armée bi ak yeneen doomi kilifa yu nekkoon ci armée bi bu tàkkusaan jotee sëñ Mansour dajale leen yóbbu leen ñu dem wasifa ji <laughs> xam nga loolu rek moo njëkk a doy waar bu àjjuma jotee mu dajale leen dem kaneen ci alaaji Ousmane Kan xadaraa fa juma mujj gi commandant bi ne leen mais ce type là c'est kii mooy kan ñu ne ko c'est le de de kër si loolu nag métti ko moom commandant bi mu ne bu ñibbisee dana xam ne fii armée la du du daara ja du kër sëriñ du kër bàyyi benn buy dem du tàggoo buy dem yóbbaale ay nit mais kii mooy kan te fii armée la lu tax muy dem te du tàggoo waxuma nag di yóbbu ay nit ñu ne ko ah, dafa dem xadara ji de <laughs> kër alaaji kër alaaji Usmaan kan pala dem xadara ji sëñ Mansour ñibbisi ñu wax ko ko mu ne ah, baax na mu fekkee ko moom ñu ne ko commandant mer na lool te nee na bu subaa tu vas ak moom parce que daal nee na amoo droit yow dem te tàggoo waxuma la ak di yóbbu keneen mu ne waaw ba mu fekkee ba mu fekkee ko xoolal ci jamono boobu lay wax de nee na mu dugg biir néegam tëj ne sëñ Babacar si yow laay waxal sama digganteeg tubaab bi wax ci nee tubaab bi xëy rek balaa moo jubli ci dossier am ñu jubli ci dossier am moom télégramme mooy yegg si Euh, commandant boobu def na fi lëj lëj yoo xam ne pare nee na nañ ko rapartie immédiatement <laughs> ñu vérifier ay mbiram moom balaa moo lijjanti sëñ Mansour lijjanti nañ ko moom ba mu dem Paris kon xam nga ne ku teel am cër la nee na bi bi bi tubaab bi ñu ko lijjantee ba mu dem ah mu sant wey na ci sëriñ Babacar si def na ci xasida woy tagg ci sëñ Babacar ñaanal ko yàlla ci ci gàttal mu gi nag tubaab yi xam ne kii du nitu kese kese ñu ne kon kii du ko ñuy maintenir ci arme bi <laughs> kii du ko ñuy maintenir ci arme bi comme ku ko laal ñu yóbbu la <laughs> te moom lu ko neex lay def bu wasifa jotee mu wasifa ji bu àjjuma mu dem xadaratul juma kii moom kenn du ko maintenir ci arme bi nañ ko ñu ko mu ñëw mu ne ñu ne ko libeere nañ la ñu ne ko yow moom libéré nañ la mën ngaa dem ñibbi lii moo indi libération ci armée waaye moom armée la mës a bëgg waaye na mu ko bëggee nag ak contexte bi nekk ci armée du benn moo tax ñu libéré ko te kenn mënalu ko dara ndax faw mu xadara faw mu wudi fa waaw loolu daf ko niru ay baayam nag Sidi Ahmed bi gaañu ca Salonique sama maam Cheikhou Diouf moo ma wax ni ñoom ñaar ñoo daan bokk malaanum wasifa suba gu jot ak ngoon gu jot nee na lu guerre bi tar tar tar Sidi Ahmed dana leen acca leen ñu wasifa mu ne wasifa bu gaaw lañ daan def nag ndax sama maam bi muy dem guerre Alaaji dem a ko jox tarixa bi mu yóbbaale ko bu sookoon nee na ñoo daan bokk malaanu wasifa mu ne ba bés dañ wasifa ba pare fajar wasifa suba teel ba pare nee na seen dàll yi lañ daan sol nag wasifa ak moom parce que bu ñuy pare rek lonkoo saag yi teg nee na biñ paree rek xam nga militaire ak moromam nee na am benn militaire bu doon kaf ak moromam rek ba dagg saaga ndey Sidi Ahmed na leen taxaw leen ñu taxaw mu ne ko saaga ñu ne ko diw mu ne laa ilaaha illallaah jeex na ñun ñëpp tey la ñuy dee xanaa xamu leen ne. diiru li guerre bi di métti métti saa bu ñu wasifa ba noppi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy nekk ci kanam na tiijaan yi nekk ci gannaaw ñoo ñuy aar ba guerre ba journée bi jeex mu ne ko bi nga saagaa rek laa gis yonent bi jaar ndey jor teg na tiijaan yi jaar càmmoñ teg mu ne ci laa xam ne dinañ ñu rey tey sama maam Cheikh Diouf nee na li ko musal moom bi bi ñëwee di xaaj contingent bi ne Hitler ñëw na pour bombarder dañ xaaj contingent bi ñaar moom mu bokk ci ripost Sidi Ahmed ak ñi la ña ca des bokk ci attaque moom ñu def leen réserve pour pour riposte nee na looloo ko musal moom waaye ña Sidi Ahmed waxoon ñëpp a dee moom ci la bokk moom Sidi Ahmed mu ne bañ koy ci mën naa laa wax fañ ko denc ca Salonique sama maam Cheikh Diouf moo may nettali kon xam nga li may xam naa ko kon sëriñ Mansour ay baayam la niru ci bëgg tariqa bi ak bëgg wasifa lu ngeen ciy déggee wala luñ ciy déggee ñun ci waxtaan wi luñ ciy déggee taalibe cheikh bu du toog ci malaanu wasifa doo am dara taalibe cheikh bu du toog ci malaanu xadara doo am dara gis ngeen borom daara ji ko teel bëgg wasifa la mook sëriñ Mansour nangoo naa ci mag mu baax mu ne à l'âge de dix ans ci la leen seen bàyyi sëriñ Serigne kër si jox tariqa bi dañ mokkal alquran à l'âge de huit ans neuf ans dix ans sëñ kër si jox leen tariqa bi loolu la maa ngi ko jëlee ci benn làmme ñu mag mu baax xoolal ku dem armée di xalaat wadifa ah booy faal yéen laay wax nag na ngeen dem naan damay wasifa yéen contexte yi bokkut de yéen du ngeen sëñ Mansour de yéen topp leen seeni chef bañ libéré leen ngeen dem ca jàkka yi wasifa ji loolu laa leen di wax de booy fal bu ngeen fi defee ni Mansour Guèye mii loo digg appliqué ko leen nga dee ci mbedd mi du noonu de am na ci yoo xam ne roy ci sa sëriñ waaye am na yoo xam ne bu ko ci roy nag ndax cëram la du sa cër yow waaye la cay déggee ak ma bëgg ci nit ñi bàyyi ci xel mooy nañu fonk wasifa nañu fonk xadratul juma ñu continue ma dem ma demam géej nañ koo dégg de loo teg géej nañ ko dégg de te dootuñ ko dégg ila yawmil xiyaamati ndax cëram la woon sama maam nee ah sama maam nee yaakaar naa dootuñ ko dégg de sama maam ne dootuñ ko dégg de ba ci nit ñi daan wax naan waaye kii fu mu toll naan sama maam ne bañ jottali ko ko xam nga lu ma ku ko bëgg util maam mu mel ni sama maam <laughs> dafa amoon fayda dafa amoon fayda mu ne ku ko bëgg util mu mel ni sama maam maa ko wax sama maam ne waaw kenn dootu ko dégg ci hay booba bi ko yàlla joxoon fa tabaarakallaahu loolu ci ngay njëkk a xame jaamu yàlla ak sëriñ Mansour ak bëgg xam-xam ñaara ko itteeloon xam-xam ak jaamu yàlla ku bëggoon xam-xam la xam-xam jaral ko lu ne kum digg na am nga xam-xam mu fexe ba xëcc la yàlla dimbale ko nag ci xam-xam ubbil ko ci ay futuxaat mu commencé nag samp daara di jàngale guddi ak bëccëg suba ak ngoon di jàngale fànn yépp nag funuun yépp téere boo indi mu la man bokk na ci li taxoon mu gën maa bëgg bés laa ñëw nuyu si ko ñuy waxtaan ma ne ko góor gi Aliou Sakho mu ngi lay nuyu rek mu xoolaat ma Aliou Sakho ban ma ne ko bu Banjul qaadi Aliou Sakho mu ne ma laa ilaha illallah Chérif da nga xam Aliou Sakho ma ne ko nijaay la ci man ndax ci wàllu maam maska Euh, pour ngeen xam kuy Aliou Sakho imaam lamin Sakho bii ngeen xam ci jumaa Serigne Mansour bii boroom daara yi fii ci golf ndeyu imaam Lamine Sakho ak Aliou Sakho ñoo bokk ndey ak baay góor gi Aliou Sakho nijaayu imaam lamin Sakho la nijaayam lenqi la man nag sama xarit la woon góor gi Aliou Sakho bu ma daan ñëw toujours daf may yóbbante ci sëñ Mansour ma ñëw sëñ Mansour ne ma yow foo xamee góor gi Alioune Sakho ma ne ko nijaay la ci man ba pare sama xarit la toujours damay gisante ak moom bànjoon mu ne ma toogal ma toog mu ne ma ku yéemee ngi noonu mu ne ma kooku rek laa gis ci xam-xam du sonn mu ne ma jamono bi muy nekk fii Tiwaawan ma di ko jàngal mu ne dama ko daan tëralal tëralal tëralal tëralal tëralal ba yëf yi bari ma ne ko Aliou Sakho dégg nga mu ne waaw mu ne bu demee dix minutes mokkal ko ñëw sharxa ko wéy ko jox ma bu ma jàngee ba noppi jàngalaat ko mu demaat 10 minutes mu ñëw mujj mu ne mujj gi dama naan ko Aliou Sakho man nit laa bu boo dul sonn man damay sonn <laughs> ndeysaan wax ma ci moom mu ne ko Aliou Sakho yow laa wax man nit laa yow boo dul sonn man damay sonn demal ba ëllëg nee na 10 minute yu jot loo ko jàngal lu mu bari bari dana ko mokkal wéy ko indi ko tari ko ci sa kanam mooy nijaay imaam Lamine Sakho bi nii ma leen xamee laa ko xamee bi ma ko mujjee seeti ak fi gaañoo deux semaine net la kaala gi ma may mu ngi fii ci sama armoire ak ten thousand dalasi bu Banjul fekk maa ngi yóbbaale àddiya bu ma ko jox mu ni ma mukk na fa woon rek ndeysaan boobu sa eh, kàttan gi jeex na mu ne ma mukk na woon fa woon dal ne indil ma kaala gi indi ko kaala gi mu jox ma kaaba kaala gi ak ten thousand dalasi bu Banjul ten thousand mu ngi tolloog deux cent mille francs moom la ma jox keroog deux semaines lañ ci teg mu génn àddina kon man li may wax xam naa ko Serigne Mansour ku ko yéem ci xam-xam am nga xam-xam te moo jàngal góor gi Alioune Sakho fa tabaarakallaahu